Aliou Aïda Ndiaye ngoog Aïda Ndiaye la grande chanteuse wàccal boog waykat arenda ngoog Aïda Ndiaye nuyu naa la fay naa la sama chéri Aïda Ndiaye naka naka baat bi ñu ngi fi rek di taxale yaa ngi neex baat ba léegi ñu ngi fi taxale daal di jàng rek kaay wax ñu la booy woy lan ngay sentir kaay wax ñu làmb xanaa sant ci kanam ay da nuyu naa la fay naa la sama chéri waaw ay da waaw dañ lay gis ci anam bi ñu yaay kan may ay da njaay bëgg fàllu waaw ba may dalee way lam boobu xale bu ndaw depuis njaareem drop ak juuf ak waaw lu xale bu ndaw la drop doomi góori ma daal ma woyal bu ma sant daan ko daan woyal ah, doomi gi war nga say morom yoon wi dangaa damm sayatu ci gaañ yi daan ah, doomi boori say morom yoon wi daan ñi la bëgg ñi la bañ yépp yow la nuy xool yow dangaa damm sayatu daan loolu laa ko daan wéyal. mu def ko lan mu ko daan mu daan ko bëreloo nag. nak. Hmm. ma ko wéyaloo rek mu bu bëre bëre bu neex sax nag. ma dellu si fii ñëw fii dëkk jàmm gën gii. di ñëw mbapatu lamsaar. yi nga xam ne Maxime Mbengaan moo ko daan tëgg. ak euh, guy gi. Pape Mbaye Sapot. ak Boole Gueye mbapatu jag saawaalo. ma fekk fa ñoom Xaadim Njaay ñii ci man ci bi ñuy jàng bëre ci mbapat maa leen daan woyal waaw ak euh, Tyson mii tey waaw Tyson mii tey kon man dama yàgg di galère daal galère dama galère daal ba yëg si fii ba yëg si arène ah, ki ma jëkk a jox ki ma jëkk a engagé arène nationale Serigne Modou Niang nag yàlla na ko yàlla yërëm moo ma jëkk a arène nationale boobu maa ngi sëy ak ndem si yàlla si buur géwél sa xarit yal na ko yàlla xare àjjana lu ma am ci làmb moom laa koy gërëme moo ko Ousmane Diouf waaw ndax ñoo ma tedd ba indi ma ci arène nationale keroog ba nu invité kii Serigne Modou Niang XFM boobu Ousmane Diouf XFM la nekk fekk ko XFM maag buur nu ngi toog nii sama néeg ñu dugg ma way ko mom seigne Modou nya dal ne bour indil mako koku sa soxna la mu ne ko amu ah, ko indil mako bes niki tay limay fay Papa Ndiaye ay dou diko fay ndiku cuun ak Moussa Diouf la koy fay moma ma jëkk ki ma premièrement ba ma dem fa mu fay ma khalis ba sun sun joon yalla tay ji ba ba yalla jël ko mu ñibbe aljana ñu ñew nak promoteur yi bax loolu nak ñom ñepp nak maase la ñu wax deug yalla ku ci teug jox la la warloog yow dëgg yàlla ñu di leen sant nag di leen gërëm te xam ne li naan peccum liir bu neexee nday jaa jàpp ca waggee moo ci nekk. mais mooy fi yomb na. yomb na yombut. siisante am na seen biir. non fi mu ne nii sax bu ñu daan siisante léegi siisante tunu ndax ku ci nekk xam na sa morom ndax ndiku mooy suñu mag ñëpp wax dëgg yàlla ñu nekk fi bu ñëwee di way ku war a way way ku warta way way waaye léeg-léeg nag mu xaw am nu mu demee nag waaye nag dangay ngay muñ rek.

xam nga lam moom dafa bari fere. dafa bëri fere. wax loolu déplacement boobu dama koy fay aller retour. lii nga gis nii. Hmm? fan ngay jógee. moom oto Kër Mbay Fall. Kër Mbay Fall ngay jógee. di su Kër Mbay Fall laay jógee. bu may ñëw damay jël oto aller ak retour. moom moo lay jël si may jël si bu lamb ji buy lamb ji grand combat di waaj a soufflé. laa koy woo. Hmm. ndax dama daan def. bu ma ñëwee dugg taxi wàcc bu ma wàcc dugg bu ma demee ñibbi bi doon problème bala nga am taxi lu ne ngay daj ndax fii bu lamb ji xasee tax fii benn oto du fi nangoo taxaw ndax naan oto du fi taxaw ñu yàq sa kër bu ko defee nag dama bu ma koy ndee moo wàccee dem dawee ay coursoom bu grand combat bëgg a kii ma woo ko ne ko grand combat ngi gi mu daal di ñëw xaar ma bu lamb ji jeexee maam fi li may am ñibbi di ko fay aller retour à part wooy lan ngay maa ngi taqale rek taqale maa ngi taqale rek yor sama taabal rek bu ma amul fu ma waye daal di jël sama taabal di njaay sama njaayum géwél samay cuuraay ak ay fer yi ay fer ak ak i sër loolu dala am ah ay bin bin ah. eh, am na ah cuuraay yi kay am na am na tur mhm. cuuraay yi moom maa ngi jeeg cuuraay yu neex daal mhm. cuuraay yi neex daal tëddal te ne muute ngi ci mhm. ah yëpp a ngi ci sarxataan ak yëpp a ngi ci waaw goowe gunu saaf ak yëpp a ngi ci waaw non judduwaale wu ma ko nag bi ma amee juróom-ñaari at la ma dal ma waree juggu ayel waaw polio la waaw polio waaw sept waaw waaye nag euh, yàlla baax na daal nan xam na yàlla la yëfi yàlla la jëf jëfu yàlla yàllaay dogal ci jaam mooy xool la ko neex mu def ko ci jaam mënoon na ma koo def ba pare mayuma xel ma nga xam ne ne mën naa cee yor sama bopp fi mu ne nii ngay gis maa yor sama bopp maay fay sama luyaas yor samay njaboot joxe sama dépasse. daanaa ko def yàgg na ba may xale ba ma gënee nekk xale waaye bi ma fàttalikoo it dëgg yàlla defatuma ko. waaw yaay la dundee loolu am ko lu ko naqaree sama yaay dem na ba bi may bi may laata ami bekkee dem na ba jaay këram xaaj këram jaay pour faje ma oh. faan gi laa nekkoon sant mm-hmm. de préance bu faan mm-hmm. fa laa amee bekkee fa laa amee appareil bii may takk ci bii may takk fi mu ne nii dafa xaw am problème sax te fi mu ne nii boo ko jënd tey jii cent cinquante mille la la koy may commencé yàqu waaw bee passé ba mu ba mu amee problème jéy seen maa ngi koy sant di ko gërëm ak kànji moo moom moo moom joxoon li ma ko defarloo moom jéey bërki démb it ba ma amee problème lu yaas kànji mi nga xam ne ne moom itamit ba ma ko ko moom moo ma ci jàppale xam nga boo doonee jigéen sosoo fenn amoo kenn ku la jàppale sa doom dëgg la mi ngi taqale waaye mënula yor benn yor bi ndax xam nga ne liggéey moom bariwut Sénégal ngay boole lépp bëgg a fay appartement bëgg fay lépp day xaw a metti waaye nag sant yàlla rek am naa ñaari bant góor ak jigéen burgéwal nga ko amee. déedéet burgéwal amaluma ko. Ah, kenn ku rek pour am lu naqari. Hmm. pour nii ma mel. Hmm. non dëgg yàlla. ndax yenn yi boo ko defee sax weddi yàlla la. biir lamb bi ñoo jékki-jékki rek ñu def lu la métti ndax sa dina ma métti waaye du ma xool ne handicap bee tax ñu def ma ko. Mhm. dama koy faj ci saase. Mhm. waaye du tax ma ne jàpp ne handicap bee ma tax ñu def ma ko. xam ne rek lu war a am rek dafa am. ndax bi moom yàlla ma ko teg te am na ña nga xam ne ne handicapé wu ne defuñu leen ne la ma mën a lijjanti mënuñu koo lijjanti foo ma mën a dugg mënuñu faa dugg la ma mën a def mënuñu koo def

yaram ci ngay mana banne ko boo ke ba boba na nga ànd ak wér gi yaram bu dund gi dayul do tara bànneexoo waaye ya laawu du jaawale yi jëf ci jaam bi kulu nafsin katin mautin yow na nga nangu jëf yow jam yalla lu mu def non la jam mënu ci dara Natu bi ya la yàlla nang ko nangu jaambe pour yalla ay dogol yalla mi jaame jame jambi nangul dogalu buur be wàccee ku baax barki Seydouna Mohamed ku baax te bu ko neexoon def neneen mais am na personnalité am na dignité wërsëg nag yàlla moo koy joxe mais personnalité ak dignité ni da koy may boppam wutal na ko su boppam xam na mooy kan lii nag man maa la ko waxal ok merci yaa baax rek kii suñu bokk la. waaw dëkk borom jàmbagal. kii suñu dëkkandoo waa kër foofu. non kii naanal la. kii moom. kii yal na ko yàlla may gudd fan. Ayda Ndiaye Ndiaye jaate Ndiaye Sénégal Ndiaye Gaynde Ndiaye. Ndiaye dégg. <laughs>